fanaan naa këram sangu <laughs> vraiment xam nga sama rakk la quoi. Mhm. Adiouza aussi ñu sekk ay ay lien yu nice. Mhm. te depuis 2017 ba léegi ñaawul. Mhm. tu vois OMG aussi on a eu à travailler Queen Bees on a eu à travailler Des Major on a eu à travailler euh, Pape Diouf dernier album bi maa ko bind ma bind Superman Love Damani Amore prévention routière Wali, liggéey naa ci ji jamono ñoo ko liggéey ak euh, ji ji jamono maa ko bind.

waaw Youssou Ndour ñu ngi liggéey Pressar ñu ngi liggéey. tu comprends Youssou Ndour démb rek démb démb démb ñoo nekk on est on a été ensemble fii ñoo nekk CCF ba ay une heure du matin. yeah mu nekk tamit booy Medina comme ni ma lay wax <laughs> Medina yi ndaanaan rek lay jur xam nga ay ñoom Mami Victoire yi ñoo fa def ñoo doon génnee seen album def ma ma def ma vraiment c'est fii une réussite Youssou Ndour ñëw fekkee ko ñu joué ay son yu nice xam nga ñu am ay moment yu vraiment émouvant yu ñu partagé mhm. Aïda Samba aussi album bi génne nii nangu bi son bu mu tuddee album bi maa def mhm. Euh, dama wax Youssou sama xel doo ko dem ci Aïda Samb <laughs> tu comprends mais mais ci euh, artistes yooyu noonu ban ban artiste nga gën a nga xam ne boo koy bind ça ça devient limpide quoi day gaaw parce que tu es à l'aise vraiment ci ay ci ay soundam quoi hmm, non c'est les artistes qui sont à l'aise avec avec moi ok tu comprends c'est man je suis à l'aise avec tout le monde parce que nekkuma di liggéey dama nekk di def sama passion te li nga li ngay bëgg boo koy def doo dañ ne fais ce que tu veux et tu travailleras toute ta vie sans travail une seconde yeah